asalaamaaleykum mbokk yi ñu tàmm di ñu topp seen site internet murit point info ñoo am mbégte kontaan te dellu si waat di leen présenté seen émission yeewi yeewi tey ñu am gan gu ñu feggool ñu koy wax Serigne Dia ginnaaw loolu duñ def lu dul bàyyi ko mu présenté wu. Serigne Dia responsable politique section Darou Khoudoss euh, trésorier de Cheikh APR Touba. ah jërëjëf euh, Serigne ginnaaw bi nga nuyoo ndax mën nga ñu wax lan moo tax nga dugg nga dugg ci politique. waaw ginnaaw bi may jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, sant sama ñaareel sant Serigne mooy politique bi ma ci choisir di ci dugg man defuma ko comme ni ko ñenn ñi di defee politique dama gis ne mbir la moo xam ne képp koo xam ne yaa ngi dund te nekk ndaw wala nga am kàddu wala nga am responsabilité war nga koy def. ndax war nga ci mën a soxali sa gox war nga ci mën a dimbali sa askan war nga ci mën a jàppale nit ñi war nga ci mën a liggéey si réew loolu moo tax ma am ambition dugg ci politique di ko def. jërëjëf euh, ndax mën nga ñoo wax lan moo tax nga tànn APR. waaw euh, APR bi ma koy tànn yàlla dafa dogale ñun ñëpp ñoo bokk nekk PDS nekk ci benn kër biñ ne ci kër gi ba mu yàgg ki jiite kër gi bokk jàpp kenn nit di ko jaay dool di ko bund xataal. Euh, bi mu ko fa jëlee yàlla dogal na ma choisir euh, sama leader di Moustapha Cissé di homme politique boo xam ne yaakaar naa ne ci au niveau international histoire politique da ci dugg ci biir histoire da ko reconnaître bi nga xam ne dañu indi woon injustice ci biir euh, assemblée muy président assemblée muy président Macky Sall yàlla dogal ñu bu ko dàq ñu bañ ci loolu ñu dàq président Cissé ñu ànd ak Cissé ñu ñëw ci APR. boobu li ñu fi jëlee woon rek mooy bañ ko néewal ni doole bañ ku ñaay jaay bañ institut moom fa jëlee ndax boobu li ñu doon def defuñu ko woon ci loo xam ne dëgg la ndax kenn mësu gis député boo xam ne askan wi ñoo ko fal li fal président de la République moo ko fal ndax dañ ko éli ci liste mu dem département Mbacké lañ ko investir ñëw département Mbacké wata liste bi massivement mu jàll ñu nguur gi fi nekkoon bëgg leen jaay doole bi ñu génne ñu ànd ak moom dem APR jërëjëf ndax mën nga ñëw dikkal ci nekkinu APR ci biir département Mbacké. waaw APR nekkinu ci biir département Mbacké mun nañ ci dikkaat mën nañ ci wax lu xaw yaatam ndax euh, ñun président de la république dañ koy lancer appel wax ko ne ko na gën a gëstu département de Mbacké aussi na ko gën a doole ay postes de responsabilité ndax APR au niveau du département de Mbacké soo koy wax da ngay wax ne kenn moo fi nekk kuy liggéey. muy ku mel ne président Cissé Lo moom mooy ki nga xam ne guddi ak bëccëg suba ak ngoon lépp mu ngi koy doxal ci am mi ngi koy liggéeyal APR. presque mun nañ ne su fekkee ne yàlla dafa dogal ne dafa génn sax parti day mel ne doo am animation moom daal mooy ki nga xam ne dañuy wax président daal euh, na dolli na dollee dooleel département bi bon am nañ ay nit yoo xam ne yaakaar naa département yëpp am am nañ ko. Euh, bu dee ñu am xam-xam am na fii bu dee ñu am gëm-gëm am bu dee ñu mën liggéey am nañ fi euh, mun na dooleel département bi daal su ko gënee dooleel daal dina baax ci département bi parce que département bi nag fi mu nekk nii boo xoolee mel noonu président Cissé ñi fi yor ay poste responsabilité nga xam ne dañu yor ay ndombay tànk yoo xam ne soit ay député lañ wala ay conseiller social lañ wala yeneen responsable lañ yor mën nga ne président Cissé Lo moo fi xol mooy xolu APR moo fi liggéey moo fi yëngal lu fi def lu fi nekk moom la ba bu yàgg ba léegi comme ni mu ko daan defee rek moom mos ci découragé benn yoon tout le temps mi ngi ci loo xam ne mooy joxaat président Macky Sall 2017 deuxième mandat jusqu'à 2019. kon daal président ñu ngi koy wax ne ko gën a gëstu département bi na ko gën a dooleel. Euh, noo noo ñu mën a expliquer coow li nga xam ne am na ci seen biir biir parti fii ci département Mbacké. waaw xam nga coow mun na ñàkk ci parti. surtout parti pouvoir kër gu bari jeeg am coow mënul ñàkk parti pouvoir boo gis day am coow mënul di ñàkk moom ala ko leen loolu day am ci parti pouvoir dana am ci PDS dana am ci PS day am ci APR mënul ñàkk hmm. waaw xam nga fan yi si ginnaaw euh, sa doomu ndey sa rak wala sa mag sax mën nañ ko duppee mi Matar Diop mi jiite commission jeunesse bi nga xam ne moo nekk ci commune bu Touba coow li mi ngi ne kurun maa ngi di gis ay ndaw yu nga xam ne ay association lañ yor ñi ay ay GIE xam ne dafa am ay luñ koppar yu xam ne dañ ko doon séddale ñu nga xam ñoom nee nañ indi nañ seen lañ leen doon laaj ay kayit yu xam ne mooy mandargaal seen activité yi ñu def waaye bañu dese lu pàccoo kenn xam ne coow li ëpp ëpp nay loxo daal loolu yow noonu noo noo ko noo ko mën a jàngate ah coow loolu de bu amee yaa ko waaye man yëguma ko fi mu ne may waxee yow mm-hmm. coow bu fekkee am na ci loolu mm-hmm. yow yaa ko yëg waaye man yëguma ko ba fi mu nekk nii may wax yow man yow gu ma ko ak seegul ci man. ah sëriñ lool lool lool loolu loolu doy na waar yi noonu noo mën a def ba loolu yëgoo ko. dégguma fi coow man de vraiment. Hmm. dégguma ko de xam nga nag man dama bokkul ak ñeneen ñi ñi ñuy waxee di wax loo gëm du ma wax lu ma gëm su ma ko déggoon nit wax ko dégg naa ko su ma amee xam-xam wax ci la ci la ma xam mais vraiment coow ak seegul ci man. Hmm. déggoo gu ko it nag. kon kon nañ jàpp ne ci comme li nga wax waaye jot nañ ay information yu nga xam ne que coow li bëri na lool euh, bërki démboo njaay lañ jot verdict bi nga xam ne que moom la CREI yi euh, daan seen adversaire politique muy Karim Wade en tant que jeune responsable politique bu APR naka ngeen naka nga dundee loolu. non xam nga man foofu dama fay wute ak ñu bëri parce que buñ ne en tant que adversaire politique Karim Wade Karim du adversaire politique un homme politique boo xam ne mënoo gagné un bureau de kooku yaakaar naa du adversaire kenn loolu na ko Sénégalais yi bàyyi ñi nga xam ne loolu PDS ñoo koy dugal ci bopp nit ñi mais Karim bi eh, adversaire Serigne adversaire non adversaire politique taxawal mënta mënta gagné de vote en 2012 mais Karim Wade 2012 du Karim Wade 2015. non Karim Wade booba ba léegi moo fi ne soppikuwul dara. déedéet soppikuwul xam nga man daal lu ma bëgg Sénégal yi di ko def. Mhm. dama bëgg ñi nga xam ne ñuy politique ñuy politique ngir seen réew. politique ngi seen askan politique ngi seen gox mais gëmuma un Karim Wade boo xam ne benn nit la rek ci population bi presque mën nañu ay quatorze millions d'habitants benn nit boo xam ne musul mën a gañe bureau de watam ñu wàññi ko mu am problème am problème jotee ak yoon yoon téye ko def ci la ci war man nag du ma ab siis mais justice bi mu téye def li ma def ñu atte ko mu am peine six ans ñu wàññi ko naan Karim Wade adversaire la ko doon Karim Wade ñun euh, bi ñu dem euh, élection euh, deux mille deux mille neuf bi ñu élection locale yi Karim Wade mi ngi foon mën nañ ne man bokku moon PDS moment yi mais PDS su perte Dakar Karim Wade moo ko waral bi ñu ko présenté kenn xam ko mënu gagné bi doon war su ko PDS perte Dakar bi ñu ko jëlee ci Pape Diop jiite ko def ko dina ci la Karim Wade perte. kon Karim bu ñu bu ñu nit ñi jë bëgg Karim am na problème mi ngi ci ay. mi ngi ci problème ñu bëgg ne Karim adversaire mënul adversité Karim mënu ko mënul adversaire mënu ko ku mënta gagné bi doon na ngay gagné am réew Serigne Karim Wade bu ngeen ne adversaire bu ngeen ko nangu bu ngeen ko nangu adversaire la pour 2017 non man defuma Karim adversaire man dal un responsable politique bo xamne mëno gagner bureau de mu ta gagner sa bureau de defoko ko waye sa responsable parti di Macky Sall

chan def ay nomination yu bees changé ñenn nekkoon Cour suprême am ñeneen cinq yu bees yu mu fëndi loolu moom yéen nu ngeen ko gisee. waaw xam nga président de la république moom la askan wi wóolu. mooy xool ñi nga xam ne ñoo ko doy di ko liggéey mu ñu war a liggéey loo xam ne am na ñoom wóolu leen mu teg leen fa ay nomination kooku. nomination indirecte la mooy seet ki ko neex comme wóolu ca mbiram mu def ko fa yow mii toog ki nga wóolu ngay dénk sa kër. borom kër ci këram ki mu wóolu la koy dénk borom réew ci réew ki mu wóolu lay dénk président ñi mu wóolu la dénk ka mu wóolu dénku leen nomination loo xamante ne ki mu am yaakaar ci moom wóolu ko xam ne kooku mën na li mu koy def loo rek la koy def loo hmm. ñu ci kaw Serigne Assane Mbacké bi nga xam ne barki woon na fi coow ci biir dëkk bi. man ay kaw Serigne Assane yooyu mën naa ne duma ci sori. ndax li ci biir ay homme politique ñoo cay dugg ci biir di jaxase di nëxal-xelu askan wi te loolu man rafetlu ma ko en tant que taalibe man taalibe Serigne Touba laa te gëm naa ne Serigne Touba liggéeyal ndax dëkkam bi mu nekk bëgg fee nekk taxu fee nekk Serigne Touba lay bool ci boobu nga bokk ci. Hmm. man dëkk bi yaakaar naa ne boo fi dalee politique yàgg na waaye mosoo dégg lu ñu la Serigne ko defal lu ñu la Serigne ko wax. li ma fas yéene daal mooy nekk ci li sëriñ bi digle bàyyi li mu tere du tee li ma bëgg ci politique ma di ko def ndax politique dimbale saw askan la di nemmee ko nit ñi la seen jafe-jafe nga ca nekk ak ñoom fexe bay dimbale sa sa réew waaye lu da ngay xas nit mbaa da wax leen lu ñaaw wala da def nag su noo man duma ko def man daal taalib Serigne Touba gëm naa ne Serigne Touba liggéeyal ndax dëkkam bi ba ma fi nekkee ba léegi amul menn mbooloo moo xam mas naa ca bokk na ci ginnaaw ci kanam laay kon gëm naa ne man taalib Serigne bi laa sëriñ bi lay liggéeyal. ana ban message ngay jox sa frère yi nga bokkal parti. non li mu nga xam ne moom laay lancé bépp membre APR dama bëgg ñu bokk xalaat boo ko gis-gis ñu bokk toog terrain entente ñu trouver solution ndax xuloo beeg muccoo beeg mbaalo bi jëru ko ndax yaakaar naa ne ñun 2017 wala 2019 bi ñu jublu ñun ñëpp ñoo bokk benn ambition mooy falaat. président Macky Sall premier tour kon yaakaar naa loolu warul bari coow match boo xam ne ñëpp ay attaquant la ñëpp bit lañ bëgg kooku war am match bu amul défense kon ñëpp ay attaquant lañ ay buteur lañ kon jàpp naa ne loolu warul am coow maa ngi leen di lancer appel dañuy raxas xol yi te bennoo ànd liggéey ngir 2017 ou bien 2019 18 heures bu ñu viva père may laasa bi président de la république na gestuwaat moom it département bi nag na gestu département bi na ko gestu ci ay poste responsabilité parce que département bi kat mun naa ne yaakaar jàpp naa ne war na am yeneen post yu bokkut ak yi fi ne. ginnaaw bi nga lancé sa message sa mot de la fin. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne askanu Sénégal. laay wax lancer message ñoom ñëpp nañu bàyyi responsable poli homme politique yi leen di dajale seen njaboot yi di leen yóbbuloo ci ay mars di yàquloo ay car di daag tàllu ay biis di tàllu ay pon loolu amul njëriñ biis yi ñun ñoo ci yéeg kaar yi ñun ñoo ci yéeg bu nan bàyyi kenn nit ku am problème am ba koo xeexloo askan wi ku amal sa jafe-jafe ak réew ak réew mi ñu nga ñu war a teg ci yoon lañ bàyyi yoon teg yoon àtte waaye nag bëgg di nax nit ñi dina dugal ci ay naka suñu noonu Sénégal yaakaar naa weesu na foofu nit ñi war a ñoo weesu bis bi ko boo koy taal ngir mere benn responsable politique ka nga mere a nga pari yow sa yow yaa ci war a yéeg kon nit ñi nañu yeewu te bàyyi inde ñu waleen ci ay masse ak ñu ñàkk fayda nañ ko baax te dem di liggéey tey wàcc su élection jotee candidat bi nga choisir nga dem wateeli ko réew ci noonu lañ koy jubbantee mais dama bëgg bëgg ne yi ñu xam ne président de la république mi ngi ci yoon te mi ngi liggéey parce que réew mi li ñu war a gën a sant yàlla mooy conseil local bi ceebu ceebu risaatul bi seerul te moo gën ci ceeb bi ñu xool bu ñu xoolee ci mbay mi réew mi soo xoolee génn dem ci àll bi xam ne àll bi foo ma a fekk ay néegi ñax léegi ay tabax la kon vraiment réew mi ngi dox mais réew nag mun ñu ko yàq ci ñeent fukki at wala ñeent fukki at ak lu topp ñu bëgg ko tabax ci trois ans mënul nekk réew lay ndànk-ndànk lay dem di dem étape par étape yi dañuy yàkkamti ba bañ ko ci yàkkamti sénégalais tey boo ci jëlal benn sénégalais nga jox ko benn tàngamaan feres su ko dee maj sax du xaar ba mu jeex da koy toj ak bëñam kon seen yàkkamti googu nañu ko bàyyi tey nañu bàyyi nit ñi nañu téye seen doom yi ndax kenn umpulewul lii xew lépp ay doomi jàmm nañ koy def loo ndax benn responsable politique boo xam ne yaa ngi génn sa taaw na ca kanam amut mbaa sa jarbaat na ca kanam amut mbaa sa jabar na ca kanam amut ay doomi jàmbur lañuy jël di leen sànq ci dul dara yooyu nañ ko bàyyi. maa ngi wax ne senegal yi dañu yeelaat si dañu yeewuwaat xoolaat seeni xel xool seeni xalaat te bàyyi liñ leen di dugal kenn nit koo xam dafa am problème su ko am problème nga leen sa problème mais am sa benn problème bu ko def problème Sénégal mën na ñàkk. loolu daal maa ngi ciy lancé appel di ko delloo waxaat di ko waxaat ne sénégalais nañu yeewu sénégalais sénégalaise ndax ñi leen di woo am nañu doom te su baaxoon liñ leen di woo su baaxoon seen doom a ciy jiitu ndax ku ci doon ab président wala nga doon ministre sa doom nga pare di jàng soo amee oto baax sa doom nga koy jox soo amee kër sa doom nga koy jox ko jox doomi jàmbur yi kon sénégalais yi nañu yeewu te am ci loolu xalaat xam ne réew doxewut noonu. xam ne ñi leen di utiliser amul ñu leen njariñ xam ne soo fekkee da nga am parti boo àndal wala nit ki nga soirée xaar ba soo ñëw nga dem wata ji ñëwaat jàmm ak salaam loolu laay wax sénégalais yi nañ ci bàyyi xel te xam ne ñi leen di jaxasee ak askan amul benn njariñ jërëjëf sëriñ jërëjëf ci kàddu yi. ñu ngi ñi ñu doon topp ci seen site internet ci mourides point info seen émission yeewu yeew yi yéen a ngi àndoon ak suñ invité Serigne Dia di responsable politique bu APR ci département Mbacké ñu feggoon moom tey doon weccoonteek moom xalaat ci situation politique bi nga xam ne moo fi am ci fan yi ñu génn ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon